yàlla sunu boroom moo xam na mu binde jël matière tabax ca nit bu doonte ni oto wa batterie ba ku ne xam na ni mooy ruuga yàlla defar la ba nga ni ñoom ca na mu gën a rafete ni mu ko wax ci alquran la yàlla def ci yow defu ci kenn ci keneen ku mu bind ku dul yow nit yàlla yamu ca jox la xéewal gi gën a ngir nga mën a ràññee moom defal la xel boo gisee ñàkk utiliser sa xel afala taaqiloon xanaa du ngeen xellu kon lu xel di jariñ wax la nit nag bu demee wàcce boppam ba xel mi ko yàlla joxoon muy faculté bu mu mën a ràññee lu koy jariñ ak lu ko dul jariñ ak fu mu jëm ak fu mu dul jëm dem ca kooku boppam la yàlla yoonam nekku ci loolu la nit gënee ak ku mu mën a doon ñu yàlla bindee moo tax yàlla jox nit kaw suuf mu mën kaa gouverner xel moomu nag la tàggat xel moomu moom la ñuy xamal di ko defar moo fi indi ressources humaines te pour mu am xam-xam am na solo lool yàlla ñëw nag. boole ruux ak albadan moo boole ruux ak yaram bi ba mu leen boolee loolaay bakken yàlla nee na bakken boobu nag imma bakkenu kàccoor saay-saay walla bakkenu kuma gërëm mais bakken benn bakken yaay tàggatu ba mel na nga mel yàlla buur bu màndul ci kaw loolu nag ndax bakken bi yàlla boole ñépp ñi ko gëm ak ñi ko weddeeg ñi ko nangam ñépp xalaqahum min nafsin waahid ndax bakken dafa ak bakkenu jamaa amul imma taqiya wa imma naqiya imma taqiya wa imma fajir kon Seydina Limaamu nee na ngëneel gi bennoo gi mi ngi ci ragal yàlla ak jub nee na bu ngeen di xëccoo mu ni fexe leen a jub kon ñàkk jubadi yàlla du ci seet kii mooy kii ndax mooy kii kële mooy kii yàlla ki mu gis mooy ki ko gëm ki ko topp li mu digle nga nekk ci yàlla ne maa la bind nit cën na mu fi ahsani taqwiim réer sa bakken puus la ba nga dégradé sa bopp ba de ba nekk bàyyi ma xoolal bakken bu sell set yàlla defal la nga ni ñum bu ñuy seet ku mën a yàq ca quartier ba yow ca réew ma yow ca société ba yow mais yaa nga ni ñëw ni nangam dem bay xëccoog bàyyi ma yi sax lanu yor parce que jullit walla nit bu mënula ràññee ñamu nangam ak ñamu mbaam xux rek bu yàggee moom ca mbaamu xux yi ñooy yem loolu lépp nag dañ leen bëgg a wax rek maandu teg yàlla ci doomu aadama yi kon lii ñu fi bëggoon doon jàngat bëgg ko tuddee yokkute muy développement ñëw ci ni tudd Seydina Limaamu ñun aspect matériel ah, kañ ci la mais du moom rek ndax yàlla bindewul ca démb ci noonu ndax nit ki jismun wa aqlun wa awaatifun wa wa la yàlla boole muy nit ñun ba ñu tabaxee nit dañu xool aspect matériel mooy ne nit ki tout ce qui est nangam nit ñi dañoo dem ba sax faf matériel moo leen yilif ay robot lañu l'islam ñëw ne loolu dugga système des valeurs jox leen ko nit ñi booy dem askan dugg askan ci askan lañu noote ay réew ci la colonial bi sax taxawe démb Chaabulaay al Muxtaar le peuple tey nit ñi ràngoowaat nañu yooyu dugal nañu askan ci biir askan ñu xaajaat nit ñi dëgg amatul dëgg poos mooy am tànk sa poos a ngi fees ngay am dëgg kenn nangootul yàlla ak dëggam parce que xëj na gisagoo karwaas yu ñu lay dóor wax naa leen ci wàllu nàngam bu la ñëwee ñu naan lan la corruption mais corruption réew yi ñu ngay nattoo ñii ci par euh, transparence internationale transparence internationale ay nit ñi yow rek ñoo ko taxawal indi seeni norme ay baromètre tekk réew yi di tiit nit ñi di tiit te pourtant sa diine moo la wax ca waxam ni la arrachi wal murtachi hadis la pourquoi parce que yow dañ laa dépouiller ci sa diine jox la rek matériel réew yi kay tuddewoo yépp sax ay réewu jullit la tuddee seen bopp te hadis yaa ngi fi loolu ba ka lislaam di dàq kenn xamul kañ la mais pour nga war kaa mën a dégg tey en tant que ay réew dama laa bëgg a wax ne aspe spirituel ni ko dugal matériel ba dañ leen di orienté ñi leen di orienté ñu diine transparence internationale nga gën a déglu li imam bi wax ci jàkka ji ci raasi wal murtashi bu ko defee ku ñu ni tudd sa tur réew ngay daw Sénégal di nga dégg benn waay woy wooy pro classé nañ ko dix-neuvième sa nañ ko ceci mais c'est quoi lu ko waral mooy ñàkk dunde suñu diine xamal sa diine nag am ouverture kon bu ñu ñëwee tey ba ñëw taxawal tey OFNAC a ngi fi et la cour de comptes nangam la pourtant ay règle la ay nit ak a teg waaw cour des comptes yàlla na ay nit ñoo ko teg xam nga loo ragal rek yat yi ngay gis waaye cour de comptes yàlla ak nattu yàlla bu ci jullit book ci croyant lu ma taxe dama la bëgg wax ne rek gars yi ni ñu dépouillé dindi nangam luy diine ci nangam teg fi matériel à 100 cent ba sax ñi tuddawoo diine seen xel dootul dell ci lool ci ay textes yu ay nit ñi ñoom teg ci la ñuy doxee kon ñun ba ñu andinee ni nangam tudde Seydina Limaamu dañoo delloowaat ci valeur islamique yi ndax bàyyi lay mënul a génn foofu ci loolu la wootee booleeg nag vraiment le matériel ñaar yi la boole nag mu nekk quand même liñ ci soxla développement inclusif Euh, comment dirais-je solidaire et durable donc ñun foofu la ñuy gise loolu te kii jundoon na yooyu loolu moo waral thème bi ñu tànn